te boo engagé ci ay liggéeyu jàmbur jël seen ay bon document jël seen ay ay ay xaalis da nga war a wàccoo ak ñoom ci li nga waxante ngoo ko muy position directrice générale bu euh, D-Media Mansour ñoom bëgg-bëgg CNRA duñu ko ci topp leer na duñu ko ci topp mais CNRA comme day yenn saa yi mu am envie fo jouer entre nu seen TV la yàlla xëy mu ciy jouer mhm. woote TNT coupé leen ma woote canal coupé leen ma alors ki jënd TNT day fay TNT ki jënd canal day fay day fay canal. alors client bi dafa am sañ-sañu recevoir vingt journal euh Sen TV. kan moko xagn ben personne Babacar Diagne ci lo xam teguñu ko fenn teguñu ko fenn parce que euh, nit ki mëna ko wax bayil sa métier bi nga am di ci fayé ko wër di dundal sa njaboot. lu ëpp ñaar Ahmed Oxygène le commencé woon def revue de presse radio Oxygène le commencé woon radio communautaire def revue de presse après man ma initié ben revue de presse ci euh, Sénégal TV bo xamni ndam si yalla sa mbeng moko momone mu nek ben ten benn télé web. Mhm. bi ma ko defee 3 mois ma bàyyi Ahmed Aidara ñëw di ko def. Mhm. ba fofu la ko Daouda Diouf gisee RFM proposé ko Mamadou Ibra Kane mhm. ñu jël ko fofu mu nek ben revue de presse bo xamni Sénégal TV daf ko don jox wa Sénéweb web ñukay jallalé ci la RFM recruté Ahmed Aidara le ci sama kanam Ahmed Aidara ak Malal Junior Diagne ñëw même jour buñu ñu commencé RFM fekk si ma fa ñu nekk ben équipe bu dëgër kon bo waag léegi boo mat na ñaar fukki at mu joggé RFM ba bi TFM tàkkee ñëw fini. fukki at ak nangam fukki at ak ñaar ci ren Ahmed def revue de presse des médias sans compter yeneen at yi jitu won tam wax ko sànq mhm. mu gis mu créé ben mouvement and ak ay mbokam ay ami d'enfance di kay leen jël suñu mairie ñu jox ko mairie bi pour mu jiite ko juróomi at dafay folleekuwaat wala dafay desaat seen waa dëkk la concerné ak résultat bi muy def mm-hmm. waaw gàñe nga si mairie seen waa dëkk Babacar ka ni la comme gàñe nga da ngay bàyyi te fii ñaata ministre ñoo fi nekk jiite ay mairie te duñu fa sax teg tànk mm-hmm. ay journalistes yeneen jiite ay organe de presse yaa xam bay jiite Le Soleil Racine Talla jiite RTS Bara Ndiaye jiite nekk directeur maison de la presse nekk nekkoon maire ca fa mu nekkoon jógee Canal Info Amadou Amadou Thierno Sy nekk RTS yeneen yi yeneen i nit. Racine Talla nekk maire nekk directeur RTS. Mhm. Euh, ñu ni la faw nga bàyyi sa métier yow. bi nga xam ne moom nga yaakaar mooy sa gagne-pain da nga koy bàyyi parce que léegi maire nga. waa xanaa amee Ahmed Aïdara donc moo nekk ci 17 million sénégalais yi nekk Sénégal wala moom li mu doon liggéey yor ci ay waajuram yor ci ay njabootam dañu ko koy xañ. Mhm. wala dañoo foog ni salaire am boobu noonu da koy jël di ko lakk. ci lay teddee ci lay dundee ci lay fayee location ci lay jënde cardinal ci lay taaba taaba ab ci lu mu am mhm. ñun ko léegi par la force da ngay bàyyi salaire bi xanaa loolu mooy demal sàcc loolu mooy demal sàcc ca fa nga nekk mhm. parce que lan moo koy épongel xaalis boobu gis nga Babacar Diagne boo nekkee mag am ay jaar-jaar ñu respecté la nga war a sant yàlla waroon nangu ci personnalité moom bi mu am te di ko incarné ñu koy def looloo xamante ni bi jaaduwul te moom ci conscience am xam na ni jaaduwul mhm. parce que nit ki am na sañ-sañu te ci métier boo nekkee maire dootoo dem tool. boo nekkee maire Moussa Fall mooy maire Diamaguène tailleur la léegi Babacar Diagne day dem tëj atelier ñu ko dootoo fi ñaw question laa la posé Ndofène Fall bi mu nekkee maire inspecteur kii la euh, inspection du travail da dañu ko ne woon da ngay bàyyi sa liggéey yeneen yeneen maire Malicounda Maguette mooy directeur Kuddu. mais ak yeneen Cheikh a Sall maire Mbour mooy directeur ADM est-ce que Babacar Diagne ngeen ne leen da ngeen jóge seen poste yooyu ngeen nekk. parce que foofu la ñuy amee salaire si mooy seen gagne pe mais ñoom Ahmed Aïdara moo nekk Sénégal moom kese kese ñu ni ko da ngay bàyyi. du dëgg du yoon. te duñu ko seetaan nañu coupé antenne yëpp ñu ñu nekk ñu nekk télé web di émettre ci internet bi. waaye bu soobee yàlla amee day liggéey si waaye gaayen lii gis nga nag gis nga lii méjum kanam la. nit a koy fajal boppam. Ahmed dina xëy si suba.

Ah, trois fois dans e. dans un pays où on dit que la liberté de la presse est consacrée. Mhm. Moi, ça ne m'a pas surpris aussi que Reporters sans frontières ñu en matière de liberté de presse Sénégal dafa pas mhm. dans le Guinée. dans le dans plus que La liberté d'expression ci ce moom nous ñu salfaañ moom la ñu néewal doole. Mhm. xam nga Babacar Diagne dans le communiqué bi nga xamante de la Sénégal il dañ a ay principe d'abord conflit d'intérêts, principe de neutralité principe d'objectivité. moom Babacar Diagne il n'est pas neutre il n'est pas objectif mm-hmm. pourquoi il n'est pas neutre parce que d'abord pourquoi il n'est pas neutre Babacar Diagne veut porter le combat de quelqu'un d'autre contre Ahmed Aïdara contre le groupe des médias mm-hmm. te loolu c'est échoué euh, c'est c'est échec na d'avance parce que combat bi nga xamante ne moom la autorité étatique yi di mener contre le groupe des médias contre Ahmed Aïdara l'homme politique mm-hmm. Babacar Diagne dafa bëgg a porter combat boobu te malheureusement moom mënu mënu ko porter tey nag li nga xamante ne moom lay def Babacar n'est qu'un mission commandée Moi, je l'ai toujours dit Babacar on xoolee trajectoire am Babacar a toujours été un soumis il a travaillé sous Diouf il a travaillé sous Wad, il a travaillé encore sous Macky Sall et il est prêt à travailler encore pour le prochain président de la République Mm -hmm. donc ce que je sais. c'est-à-dire exécuter rek la xam kooku ki nga xamante nag moom exécuter rek la xam loo ko wax da koy def d'autant plus que tey CNRA moo nekk structure boo xam ne amatul sa raison d'être parce que CNRA ci boppam moo périmé Sénégal ci boppam avec le nouveau code de la presse là code Sénégal dafa war a disparaître wala ñu réformer waat ko. comme que nag moom il va montrer au chef encore au prince que moom mi ngi liggéey moo tax fi ñu toll li nga xam ne moom noonu moo neex prince bi rek moom lay def. mais mbay sa wu mu tànk tey bu fekkonte ne dañuy euh, sanctionner rek mais nañ commencé RTS waaw RTS yow ñaata bis bu nekk nga gis RTS moom télé affaire sax lu mujj ne waxatuñ sax waxu président rek mais télé APR c'est-à-dire xuusmaa ñap bu jóg APR ñu ñu wan ñu wan a télévision boobu mhm. yow mës nga dox ben yoon rek ba gis ben damitu Ousmane Sonko wala ben damitu euh, comment dire un opposant boo xam ne wane nañ manifestation un Barthélémy Dias mhm. mosoo ko fa gis toujours on nous montre les images là et puis c'est une télé nationale mhm. pourquoi ñom ils n'ont pas tapé sur la RTS pourquoi ils n'ont pas tapé sur Racine Talla Racine Talla ci bopam mom la muy def wax naan Nimzat daf koy génn télé bi un jour j'ai suivi pendant cinq minutes reportage boo xamante ni moom lañ teg et qui faisait sa promotion parce que ay don yu mu yu mu est-ce que une seule fois da nga dégg waa waa kii wax affaire euh, conflit d'intérêt ils ne le font pas parce que c'est la RTS parce que boo xëyee joxe mise en demeure RTS ñu daax ko mm-hmm. bés bu ko defee ñu les ko léegi nag comme que jàpp na ne moom waa médias moom ñoom ñooy nooy neex yi na leen d'accord mais je crois que il faut attaquer cette décision là man que je trouve quand même illégale xam nga légalité kenn mënuñ cee jox ay leçons parce que lu tax moo ko buñ dee wax légalité tey ñaata structure nga gis fii ñu koy occupé illégalement Sayer Niang au niveau de l'ARMP il est maintenu illégalement cinq ans yoo xamante ni ma ngi fay toog amul benn décision bu valable boo xam ne tey mi ko jël au niveau de la Sénat aussi c'est la même chose Doudou Ndir est maintenu illégalement à la tête de la structure Racine Talla qui a atteint comment sa retraite il illégalement aujourd'hui à la tête de la RTS waaw moom ci loolu la waroon njëkkee mais tamu bàyyi vraiment le groupe des médias parce que nag affaire bi la coupe est pleine et je crois que quand ni ko Mansour waxee rek mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam et ce ce combat là duñ ci tay duñ ci bàyyi. Mhm. le problème qui se pose mooy Ahmed Aïdara moom ils n'ont qu'à le combattre politiquement mais nañ bàyyi groupe bi waaw. manifestation Ousmane Sonko bu lay wone ay xale yi manifester. Mhm. amit erreur bu fi def revue de presse loolu mënu tudd. Mhm. Euh, voilà euh, teewul askan wi ñoom ñu ngi ñuy suivre en direct ci mhm. réseaux sociaux ñu ngi ñuy suivre ci euh, Sen TV l'officiel ci page Facebook bi di ñu suivre également ci YouTube ñu wëyal ci xibaar yi ONG di di leen fàttali itam ni programme yi fii ba dimanche bi ñu ne dañu koy couper lépp li waroon am muy suba bi ba guddi gi amul dara loo xamante ne dinañu ko tëb lépp day am kon na mu war a amee wax

population euh, di euh, napp ci waaxu Sénégal yi ñu ondu ceek moom waaw ba léegi nii tamit ñu ngi ñu ngi laaj ay ay euh, transparence ci wàllu napp gi parce que depuis depuis ñaari at a ngi nii ñu ngi woo autorités yi nga xam ne ñoom ñoo yor en charge napp gi ci Sénégal ñu leeral ñu gaalu saxaar yi nga xam ne ñu ngi ci biir géej gi ñu wax ñu ñaata lañ kan ak kan ñoo fi nekk pour ñu mën a xam na lañ parce que gis nañ ni saxaar yi bëri woon nañ ci géej gi bëri goo xam ne ba nga xam ne napp gi ñi nga xam ne dañ ciy dund mënatuñ ci dund normalement ñi woo nit ñi ñu def ci plus de transparence ñu bàyyi licence de pêche yi ñuy